yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk yàlla yónnewul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen tey jii ay téeméeri junni nit ñu ngi topp ngeerum yéesu ñeenti wàll leen jiin ñooy wone ni ngëmul gaay kirist sosoo waaye lu ëpp ci lu ñuy waxtaane fii ñu ngi ko jukkee ci xaaj bu luk mu tedd mi bind maa ngi lay bindal yow teew fil mu tedd mi nettali bi jëm ci mbir yi xewoon ci sunu biir maa ngi koy def ngir nga xàmme wérug njàngale mi nga jot ca jamono ja César Auguste nekke borom Rome te Hérode mu mag ma di buurub Yude yàlla yónni malaakaam Jibril ca dëkkub Nasaret ca diwaanu Galile ca kër janq bu tudd Mariama maryaama bu ragal yàlla tànn na la ci yiwam di nga ëmb jur doom ju góor nanga ko tudde yéesu naka la loolu mën a amee jànqalaat xel mu sell mi dina dikk ci yow te ngeneelu aji kaw ji dina la yiir ni kër moo tax xale bu sell bi juddoo ci yow dinañ ko wooye doomu yàlla nguuram du jeex mukk maryaama dem ci benn dëkk bu yuude ca kër elisabet moom itam ëmb ci kaw kéemaan ku rëy Elisabeth Mariama sang bi Mariama barkeel nañ la ci jigéen ñi te doom ji nga ëmb it barkeel na naga laa dégg sa baat ngay nuyoo rekk sama doom yëngu ci sama biir ndax mbég sama xol mu ngi màggal borom bi tey sama xel mu ngi bég ci yàlla sama musalkat bi gannaaw si tey ñépp dinañu ma wooyee ku barkeel ki xam leen yéen waa Nasaret ne buur bu mag bi ñuy wax César Auguste joxe na ndigal ne na ñépp bindu ji ci mboolemu suuf yi ñu nangu te nekk ci diwaanu Galilée ak Yuude na ñépp dem bindu ji ku nekk ca sa dëkku cosaan noonu Mariama ànd ak jëkkëram Yusufa dem Betlehem ci diwaanu Yude bindu ji waaye xajuñu woon ca dalukaayu gan ña ba mujj dal ca lekkukaayu jurub yemaama yi fekk booba amoon na ca gox ba ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya di wattu jur ga noonu malaakam yàlla feeñu leen ndamul borom bi melax ci seen kaw tey jii ca dëkku daawuda musalkat juddu na leen fa di kirist di almasi di borom bi sàmm yi daldi dem seet liir ba tëdd jëkk a tas xibaar bu baax bi di yëgle musalkat bi juddoo ci janq bi bés ba dellusee jamonoy xarafal xale bi agsi ñu tudde ko yeesu yusufa ak maryaama daldi ko yóbbu ca dëkku jérusalem ngir sedde ko borom bi amoon na ca kër yàlla ga ku baax te jub tudd Simeon te xel mu sell mi xamal ko ne du dee mukk te gisul almasi bi léegi nag borom bi danga yeewi sa jàmm mu noppalu ci jàmm ni nga ko waxe woon ndaxte samay bët tegu nañu ci musalkat bi yàlla tànn na xale bi ci biir ñépp na leen aji kawe ci barkel yéen ñaar bi ñu matale seen warugar ci lépp lu yoonu borom bi santaane woon ñu jóge Yerusalem ngir dellu Nasaret bi Yeesu amee fukki at ak ñaar Yusufa ak Maryaama yóbbu ko Yerusalem ngir màggal bésub jéggi ba waaye bi ñuy dellu yéesu des Yerusalem te ay waajuram yëguñu ko woon ñu dellu Yerusalem seeti ko ca gannaaw ëllëg sa ñu fekk ko ca kër yàlla ga mu toog ca jàngalekat ya ak mag ña fan la xale bu bare laaj bi jóge nasaret la jóge dañoo yaakaaroon ne ànd na ak ñun jéggal leen ko ak farloom ñépp ñi dégg li mu wax yéemu ci xel mi mu àndal tey sama doom lu tax nga def ñu lii man ak sa baay ñu ngi la doon seet jaaxle lool lu tax ngeen may seet xanaa xamuleen ni dama war a nekk ci sama mbiru baay yeesu ànd ak ñoom dellu nasaret mu ngi doon màgg ci jëmm tey yokk ci xam-xam te neex yàlla ak nit ñi juróom ci nguurug tibeer la pons pilaat yilifoon diwaanu yude te erod yilifoon diwaanu galile anas ak kayif nekkoon sëriñ yu mag ya kàddug yàlla wàcc ci yax ya ca màndig ma mu daldi dugg àll bi wër dexug yurdan di waare nii tuub leen seeni bàkkaar ba noppi ma sob leen cim ndox soppi leen dundin sori leen bàkkaar nañu leen sob cim ndox te yàlla bal leen seeni bàkkaar noonu lañu ko bindee ci téere bi indi waxu yonenti yàlla isaya baat dina jollee ca manding ma te naan xàll yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar xàll ay ñàllam te jubal leen bépp xur dinañu ko sëpp bépp tund dinañu ko maasale yoon yi dëng nañu leen jubbanti te yoon yi ñagas nañu leen rataxal noonu bépp mbindeef dina gis mucc gi yàlla tëral. lan la ñu war a def wax ñu ko. déglu leen ma yéen ñi fees ak dangar ni ko. looy nekk ci ñun. wax ñu nan la war a def lu tax waxoo ñu dara. képp koo xam ne am nga ñaari mbubb na nga jox menn mi nit ki. amul menn te ku am ñam itam bokk ko ak yamul kilifa gi nun jootikat yi lu nu war def bu leen teg dara ci li ñu leen laaj loo ay soldaar ne ko ñun nag bu leen neewal doole kenn jël xaalisam ci kaw ay tëkku ba ngeen di seede loo xam ne du dëgg waaye doy loo leen di ñu leen di fay wax nu ndax yow yaa yaay almasi bi maa ngi leen di soob ci ndox waaye keneen ku ma ëpp kattan dina ñëw te yeyowuma tekki ay dàllam kooku dina leen sóob ci xel mu sell mi ak ci safara dina jëri dàggaja ba mu set te pepp ma dina ko def ci am sàqam sell mi daldi wàcc ci yeesu yor jëmmu petax te baat bu jóge asamaan jib naan yaa di sama doom ji ma bëgg am nga sama waaw ci lépp bi yeesu de tàmbale liggéeyam amoon na lu war tollu ci fanweeri at mu fees ak xel mu sell mi jóge dexuk yurdan te xelum yàlla mi yóbbu ko ca màndiŋ ma mu nekk fa ñeent fukki fan jànkonte ak fiiri seytaane lekkul woon dara ca fan yooya seytaane né ko soo dee doomu yàlla soppil doj wi mburu mbind mi nee na nit du dunde mburu rekk waaye ak mboolem kàddu gu yàlla wax noonu seytaane yóbbu ko fu kawe ci xef ak xippi mu won ko réewi àddina sépp dinaa la jox bépp sañ-sañu nguur yi ak seen ndam ndax jébbal nanu ma ko te ku ma soob laa koy jox kon boo ma màggalee dinga moom lépp mbind mi nee na nanga màggal yàlla sa borom te nga di ko jaamu moom rekk seytaane yóbbu na ko ba Yerusalem ko ca njobaxtalu kër yàlla ga boo dee doomu yàlla tebal jëm ci suuf ndaxte mbind mi nee na yàlla dina jox ay malaakaam ndigal ñu sàmm la dinañ la leewu ci seeni loxo ngir nga bañ a fakkastalu ciw doj waaw waaye bind nañu ne bul diingat yàlla sa borom bi dem nasaret fa mu yaroo bisub ba mu dugg ca jàngu ba ni mu ko daan defee ñu jox ko téereb yonent yàlla Esaay ci man moo ma tànn may yëgal xibaar bu baax bi new doole yi dafa ma yónni ngir ma yëgal jaam ñi ni dinañu leen goreel yëgal gumba yi ni dinañu gis ngir goreel ñépp ñu noot tey yëgle at mi coobarey borom bi war a feeñ jii loolu mbind mi wax mat na bi ngeen koy déglu. lan wax ji mat na tey jii. moo waay almasi bi rek moo ko mën a matal. xam naa ni di ngeen ma ni fajkat bi fajal sa bopp di ngeen ma ni it yëg nañu lu xew Kapernaum defal lu nu fii ci réew mi nga dëkk ci dëgg maa ngi leen koy wax ab yeneen kenn du ko teral ci am réewam. ci wax ji Yeesu tuddoon na moom ci boppam ne mooy almasi bi. ki yàlla barkeel yebal ko ngir musal aw xeetam yawut yi bañ nañ ko nangu ni almasi bi ñu yóbbu ko ca mbattalum tund wa ngir bëmbax ko ci suuf waaye mu jaar ci biir mbooloo ma dem yoonam mu dem Kapernawum ab tëkk ci diwaanu Galile nawtaangey rom ci réew mi demoon na ba fes fépp te nit ñépp di taaxirlu ñëwug almasi bi leen di goreel ci toskare jooju

ci des jutikat kilifa diine baa ngi taxawoon di ñaan yàlla naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma meloon ni ñeneen ñi sàcc di def lu jubadi tey njaaloo ni nu mel ñoom ñëpp maa ngi lay sant ci li ma meloon ni jutikat bi damay woor ñaari yoon ay bés bu nekk te di joxe asaka ci lépp lu ma am waaye jutikat ba moom ma nga taxaw fu sori te bëggul sax si xool ma ngay fëgg dënd ba naan yow yàlla yërëm ma man mii bàkkaarkat waaye ci dëgg maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom lay yàlla àtte ni ko jub waaye du kilifa diine ba ndaxte képp ku yëkkatiku des na la suufeel te ku suufeelu ñu yëkkati la joowal gaal gi ba fa ndox ma gën a xóote ba noppi ngeen sànni fa seeni mbaal ngir napp kilifa gi coono lañu te jàppuñu dara ba dara bonoo jeex <laughs> waaye nag soo ko waxee dinaa sànni mbaal mi ci sa ndiggal saak yowaana sore ma borom bi ndaxte nitu bàkkaar la bul ragal léegi nag di nga won nit ñi sama yoon xel mënta ngeen ciy jëlee ak di wéy ci jàmm. mu ngi ñëw mu ngi nii xool leen. darax ma rawale sama jenn doom ju jigéen ji. cey kilifa gi ma ngay waaj a fukki atax ñaar rek la am maa ngi lay ñaan. sama xarit àndal ak sa sago. faw mu ñëw. sa doom faatu na bul sonal kilifa gi. gëmal rek te dina bàyyi leen jooy yi jànq bi deewul dafay nelaw rekk xale bi jógal leen ko mu lekk waaye bu leen ko siiwal ndaxte kenn warula yëg di xew fii gannaaw loolu yéesu génn gis juutikat bu tudd Màcce mu toog ca buntu juuti ba yeesu yéeg ca ngir ñaan mu fanaan di ñaan ci yàlla bi bët setee mu woo taalibeem yi tànn ci fukk ak ñaar tuddal leen ay ndawam simon mi mu Pierre André mii rakki Pierre Saak ak Yowaana Barthélemy Matthieu ak Thomas saak doomu Alfe ak Simon mi mu dippee Seloot yuda doomu saak ak yuda iskariyo mi ko mujje wor sësu lu dul ci yàlla barkeel ngeen ndax nguurug yàlla yéen ko yeyoo yéen ñi xiif léegi barkeel ngeen ndax di ngeen rekk yéen ñi naqarlu léegi barkeel ngeen ndax di ngeen ree barkeel ngeen bu leen nit ñi bañee di leen dàq ak a saaga di suufeel seeni tur ni li ñu sib ngir doomu nit ki su boobaa bég leen te bànneexu ndax seen yool dina rëy ci laaxira ndaxte noonu la maami seen bañi daan fitnaa la yonent yi fukk ak juróom mooy lépp li ma am. li loolu. torox ngeen yéen borom alal yi ndax jot ngeen seen bànneex ba noppi. <laughs> duggul alal dafa dof yéen ree léegi torox ngeen ndax di ngeen am naqar ba jooy xàcc. torox ngeen bu leen nit ñépp dee waxal lu baax ndaxte noonu la seen maam daan jëfe ak ña doon mbubboo yonent waaye maa ngi leen koy wax yéen ñi may déglu sopp leen seen bañaale baax leen ci ñi leen bañ yéene leen lu baax ñi leen di moolu te ñaanal leen ñi leen di sonal bu la nit talaataa ci sab lex jox ko ba ca des bu nangu sa mbubb mu mag bul téye sa turki mayal képp ku la ñaan te ku mënti nangu sa yëf bul ku ko laaj defal leen nit ñi li ngeen bëgg ñu defal leen ko su ngeen soppee ñi leen sopp dong ban ngërëm ngeen ciy am ndaxte bàkkarkat yi sax sopp nañu ñi leen sopp te bu ngeen defalee lu baax ñi leen koy defal lu tax ngeen di ci yaakaar ngërëm bàkkarkat yi it dañuy lebal seeni moroom ngir ñu delloo leen ko nu mu mën a waxee ak moom. kim li ma soob. waaye sopp leen seeni noonu di leen defal lu baax tey leble bañ a yaakaar ñu delloo leen ko noonu seen yool dina màgg di ngeen wane ni yenee doomi aji kawe ji ndaxte moom day wane mbaaxam ci ñu goradi ak ñi bon na ngeen am yërmande ni seen baay bi amee yërmande musal ñu yéesu bu leen atte ak ñaaw njort te desu leen atte it bu leen daan kenn te noonu deesu leen daan baale leen te dinañu leen baal tamit yeesu wan ñu yoon wi maye leen te dinañu leen may ndaxte des na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale ndax gumba mën na womat boromam mukk dinañu daanu ñoom ñaar ñëpp ci kàmb lu tax ngay xool ñax gi nekk sa bëtu mbokk mi te gisuloo nag gaañ gi nekk sa bët yow kilifa gi womat jigéen ji la ëmb te nàmpal moo barkeel. neel kay ki barkeel mooy kiy déglu kàddug yàlla te di ko topp. bëggoon naa xam nit kii. defe nga ni mën na nekk almasi bi. te pharisien bi Simon ñaan Yeesu mu ñëw lekkandoo ak moom. yéesu dem kër waa ja toog ca lekkukaay ba moo waay xale yi jàll leen ne du ngeen dégg moo waay ah xale yi du ñu toog mukk jigéen ji koy laal ki na xam ne jigéen ji moykat la xam naa kuy jigéen ji si moom te am naa lu ma la war a wax ñaari nit dañoo ameloon bor benn leblekat kenn kaa ngi ko ameloon téeméeri junni ki ci des fukki junni waaye kenn ci ñoom mënu koo fay noonu mu baal leen bor yee ñoom ñaar ñëpp kan ci ñoom ñaar ci gën a bëgg naa ki ñu baal bor bi gën a bari atte nga dëgg gis nga jigéen ji dugg naa sa kër te joxuloo ma ndox ngir ma raxas samay tànk waaye moom raxas na samay tànk ak rangoñam ba noppi fomp leen ak karawam bi ma agsee foonuloo ma moom bi ma duggee ba tey taayiwul ci fon samay tànk defuloo diw ci sama bopp waaye moom sotti na laj ko leen ci samay tànk ci dëgg maa ngi leen koy wax su wanee mbëggeel gu réy nii dafa fekk ñu baal ko bàkkaaram yu bari waaye ku mbëggeelam néew day fekk ñu baalalu tuuti baal nañu la say bàkkaar sa ngëm musal na la demal ci jàmm ma ma weesu di yëgle xibaar bu baax bi jëm ci nguurug yàlla fukki ak ñaar ànd ak moom ak ay jigéen yu mu tàggale woon ak ay rab yu bon maryaama magdala saan jabaru susa mi doon wattu alali erod ak susaan Hérode kilifa ak diwaanu Galilée ci moomeeluk waa Rome tëj Yaxya kaso ndax li mu ko yeddoon bi muy takk jabaru magam waaye kenn ca taalibe ya di ko xamal si li Yeesu daan def lu xew nga dugg dëkk bu nuy wax naayin ñu nga doon rob ab néew boo xam ne kenn rekk la woon ci ndeyam ji jëkkëram faatu woon bi ko yeesu gisee mu daldi ko yërëm mu laal jaat ga ko waxambaane wi jógal noonu nit ka dee jóg toog yeesu delloo ko yaay ja laaj ko ndax yow yaa di ki Yaxya doon wax ne dina ñëw walla dañoo war a xaar keneen ya yebal ñu laaj ndax yaa di ki ñëw wala dañuy xaar keneen dem leen nettali yaxee li ngeen gis te dégg ko gumba yaa ngi gis lafañ yi dox yow mi sëngam yëlamul ndax man mi barkel nga dama bëgg a gis yaa ngi gis léegi ah waaw gis naa yeesu dafa amoon benn bés béykat bu demoon ji bi muy saw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci yoon wi ñu joggi ci picc asamaan yi lekk ko lépp leneen wadd ci béréb bu bari ay doj naka la sax rekk daldi wow ndaxte suuf si moom tooyul woon leneen nag wadd ci biir xaaxam ya noonu ñu ànd saxandoo xaaxaam ya tànc ko li ci des dal ci suuf su baax sa jiw ba sax màgg ba meññ ay téeméeri doom bu ci nekk kilifa gi lu tax ngay waare ci ay misaal ci kanamu mbooloo mi may nañu leen yéen ñépp ngeen xam mbooti nguuru yàlla waaye ñi ci des dama leen di wax ci ay lépp ngir ñuy xool te duñu mën a gis tey dégg te duñu mën a ràññe lii la léeb bi di tekki kàddug yàlla gi nag mooy jiwu wi ki féete ci yoon wi mooy tekki ñi nga xam ne ñooy dégg waaye seytaane dafay ñëw këf kàddu gi ñu def ci seen xol ngir ñu bañ a gëm te yàlla musal leen pepp mu nekk ci bërëb yu bari ay doj mooy ñi dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci ñoom ab diir bu ndaw dong la ñuy gëm waaye bu natt bi agsee noonu ñu daldi dàggeeku ki jot jiwu ci xaaxaam yi mooy ñi dégg kàddu gi waaye nees tuuti soxla yeeg alal ak bànneexu àddina tànc leen ba duñu mën a àgg ci mat ki jot ci jiwu ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te noonu mu denc ko ci xolam bu baax bu gore te muñ ba jur bés njëriñ lu bari kenn du tàllam ba noppi dëpp ci leget wala mu di ko def ci ron lal mukk dafa koy wekk ngir mu leeral ñi nga xam ni ne dañuy dugg si amul dara luy kumpa lu ñu dul siiwal bés wala lu làqu lu ñu dul feeñal ba mu ni fàng seet leen bu baax ni ngeen di dégloo kàddu gi ndax ku am des na la dollil waaye ku amul des na nangu sax li nga xalaatoon ne am nga ko ba noppi kilifa gi sa yaay ak sa rak ñu ngi taxaw ci biti dañu laa bëgg a gis sama yaay ak samay rak ñoo ñiy déglu kàddu yàlla te di ko toog benn bés yeesu àndoon na ak ay taalibeem dugg ci gaal mu ne leen nañu jàll dex gi bi ñuy dem nag mu daldi nelaw Galilée ca diwaanu Gerasa fa jàkkaarloo ak diwaanu galilé kawe ji loo may fexeel maa ngi lay ñaan nga bañ maa mbugal naka nga tudd yow cogal lañu ñu ngi lay ñaan nga bañ ñoo sànni ci kàmb gu xóot gi may nu ñu dugg ci gétt mbaam xuux yi noonu rab ya génn ci nit ka dellu si leen ñu dugg ca biir mbaam xuux yi dama bëgg ànd ak yow may ma ma ànd ak yow ñibbil te nettali di yàlla defal taalibe ya rocciku dem betsayda bi ko nit ña yégee ñu toppi ko ba jant bi wey Pierre naan yeewil mbooloo mi ñu dugg ci dëkk yeeg àll yi ko wër ngir ñu mën a am lu ñu lekk fu ñu fanaan fii àllub neen la jox leen leen lu ñu lekk yéen ñi waaye amuñu fi lu dul juróomi mburu ak ñaari jën sama borom moom mi moom àddina tey génn mburu ci suuf si ku nit ñi wax ne moom la am na ñu naan yow yaa di yaxya ñeneen ne yow yaa di elias ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yu jëkk ya dekki waaye yéen nag ku ngeen ni moom laa yaa di almasi yàlla yónni buleen ci wax kenn dara doomu nit ki war na sonn lu bari ba noppi ñu dëddu ko noonu ñu rey ko ba noppi mu dekk ca ñetteelu fan ba jàpp waaye may ma ma njëkk a tàggu ji sama waa kër. képp koo xam ne kii da ngay béy di gestu yeyowuloo liggéey ci nguuru yàlla gi ku bëgg aw ci samay tànk na bàyyi boppam gàddu bés bu nekk bant buñ ko war a daaje door a topp ci man ndax koo xam ne bëgg nga rawale sa bakkan di nga ko ñàkk waaye ku bëgg a ñàkk sa bakkan ngir man di nga ko jotaat ndaxte moom àddina sépp lu muy jëriñ nit ki su fekkee ni dafay ñàkk bakkanam ku ma rus a faral te nanguwuloo samay wax te noonu doomu nit ki dina la rus xam bés bu ñëwee ci ndamam ak ci ndamul baay bi ak malaaka yu sell yi ci dëkk maa ngi leen koy wax am na ñu taxaw fii ñoo xam ne duñu dee te gisuñu nguurug yàlla gi yeesu ànd ak yowaana saak ak piyeer yéeg ca kaw tudd ngir ñaan bi muy ñaan xar kanamam daldi soppiku ay yéreem weex tàll bay melax am ñaari nit di waxtaan ak moom mu yonent yàlla Musa ak Ilias ndamul yàlla wër leen di nga coobare yàlla Yerusalem ngay faatoo bi Moussa ak Ilias di sore Yeesu Pierre ne ko kilifa gi dëgg nañ ci li ñu nekk fi dañu defar ñetti mbaar benn yow benn Moussa benn Ilias bi mu koy wax aw niir ñëw muur leen taalibe ya tiit noonu baat jibe ca niir wa naan kii mooy sama doom ji ma fal déglu leen ko sama doom dimbale ko maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan wàllusi ko moom képp laa ñaan naa say bi ñu dàq rab bi nekk ci moom waaye mënuñu koo defal dara yéen nit yi jamono ji yéen ñi gëma di tëddëng ba kañ laa war a nekk ak yéen te di leen muñal andil ma sa doom jàngal ñu war a ñaane nu ko yaxee jàngale ay taalibeem bu ngeen dee ñaan leen baay bi ci kaw na saw tur sell na sa nguur ñëw na sa coobare mat ci suuf ak ci asamaan may nu bés bu nekk lu ñu war a dunde baal ñu sunuy bàkkaar ni ñu baale ñépp ñi ñu tooñ bul ñu teg ci yoonu nattu te musal ñu ci lu bon ñaan leen ñu may leen seet leen te di gis fëgg leen ñu ubbil leen ndaxte képp ku ñaan di nga am kuy seet dinga gis te képp ku fëgg ñu ubbil la <laughs> bu sa doom ñaanee jën yow mi nga xam ne yaay baayam ndax di ko bañ a jox jën jox ko jaan wala mu ñaan la nen nga jox ko jiit degam yéen ñi bon nag yéen a mën a jox seeni gone lu baax aste mag baay bi nekk ci kaw dina jox xel mu sell mi ñi ko koy ñaan maa ngi leen koy wax bu leen seen bakkan jaaxal ci li ngeen war a lekk bu leen jaaxle it ngir seen yaram ci li ngeen war a sol ndaxte bakkan moo gën lekk te yaram moo gën ko day seet leen baaxuñ yi duñu ji duñu góob amuñu dencukaay amuñu sàq teewul yàllaa ngi leen di dundal céy ni ngeen ëppe maanaa picc yi ana ci yéen ci kaw njaaxlem moo mën a yokk waxtu ci àppam su fekkee ne lu tuuti loo rek mënu leen koo def lu tax ngeen di jaaxle ci li ci des seet leen ñi tóortóoru ñax mii di saxe duñu liggéey te duñu ëcc waaye maa ngi leen di wax ni Suleymaan sax ci ndamam soluwul woon ni benn ci ñoom bu yàlla waddee ni ñaxum tool yi mi sax tey te suba ñu def ko cib taal ndax kon du yéen la war a gën a wodd cey yéen ñi néew ngëm defal ba suñu ngëm yokku su ngeen amee ngëm lu day ni pepp fuddën kon di ngeen wax garab gii bu deekul dem jëmbatu ca géej ga te dina def li ngeen wax géej moo gën ci moom mu yóbbe bàkkaar kenn ci ñi gën a tuuti ci ñii lan la nguurug yàlla di nirool mi ngi mel ni doomu fuddën gu nit jël di ko ci toolam mu sax nekk garab gu mag ba picc asamaan yi tàgg ci caram man daal wóoru ma ne xam naa li muy wax. <laughs> lu tax ngay lekkandoo di naanandoo ak ay juutikat ak ay borom bàkkaar. nit ki wér soxlawul fajkat ki wéra di moo ko soxla dama ñëw ngir woo bàkkaarkat yi ñu tuub seeni bàkkaar waaye du ngir tuubloo ñi jub. xam nga nettali bu ragal dara yow cogal ju ndaw ji ndaxte dafa soob seen baay mu jagleel leen nguuram jaay leen seen alal saraxe ko ngir sàkku ay mbuusi xaalis yu dul bënn maanaam alal ju dul jeex ca laaxira foofa sàcc du ko jege te max du ko yàq ndaxte fu sa alal nekk wala sa xol di nekk itam. sa feebar dañ na war ngeen a ñëw faju si si bés yooyu waaye du si bésu noflaay bi. nafiq yi kenn ku nekk ci yéen dina yiwi yëkkam wala mbaamam ngir wëggi ko ci bésu noflaay bi waaye jigéen ji bokk ci askanu Ibrahima te seytaane tënk ko fukki at ak juróom-ñett ndax kenn waru ko yiwi ci bésu noflaay bi. Sall ci dund gudul jeex gi lu tax nga ne ku baax ki kenn baaxul yàlla rekk a baax xam nga ndigal yi bul njaaloo bul boom bul seede dara lu dul dëgg teralal sa ndey ak sa baay loolu lépp sàmm naa ko di dale ci samag ndaw ba tey léegi nag am na lenn loolu desee jàng jaaye lépp li nga am nga séddale ko miskin yi noonu di nga womle asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man waaye ay baana baana ak ay boroom alal lañu borom alal dugg ci nguurug yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb borom alal dugg ci nguurug yàlla gi kon nag ku mën a mucc di nit ki mënula def lu yomb la lool fa yàlla waay fan la yàlla di tëral góoram nguurug yàlla gi moom nag nekkul lu ni fànn te kenn du mën a wax ne xool leen mi ngi fii wala ma nga fale ndaxte nguurug yàlla wàcc na ci seen biir jamono dina ñëw ju ngeen di bëgg a gis benn ci fan yi doomu nit ki di ñëwee waaye du ngeen ko gis ndaxte ni melax naan raye ci asamaan di leeral gi wet ba ca gee noonu it la doomu nit ki di ñëwee ci bësam waaye bala booba faw mu sonn lool te nit tey ñi weddu ko jël fi asamaan si ak suuf si moo gën a yomb randal wenn rëdd ci arafi yoonu Musaa maa ngi leen koy wax yonent yu bari ak buur yu bari bëggoon nañoo gis li ngeen gis waaye gisuñu ko tey dégg li ngeen di dégg waaye dégguñu ko. lan lañu ñu war a def. lu ñu bind ci yoonu Musaa lan nga ci jànge na bëgg yàlla sa borom bi ak sa xol bépp ak sa bakken bépp sa kàttan gépp ak sa xel mépp te itam nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp. wax nga dëgg boo defee loolu di nga dund. kan mooy sama moroom nag. xarekat yii de César nag dafa amoon bés nit ku jóge Yerusalem jëm Yeriko ay sàcc dogale ko futti ko dóor ko ba muy bëgg a dee dem bàyyi ko fa faf ab sëriñ bu doon jaar ci yoon wa bi mu séenee nit ka mu teggi noonu itam jenn waa ju nekk ca màggalukaay ba séen nit ka teggi ba sori ko waaye noonu jenn waa ju dëkk Samari ju doon tukki ñëw ba seen waaja bi mu ko gisee mu yërëm ko lool mu jege ko diw ko diwlin ak biiñ ngir faj gaañu gaañu ya ba noppi mu teg ko ci mbaamam yóbbu ko ci dalib tukkikat yi di ko toppatoo bi bët setee mu génne ñaari posete xaalis jox ko boroom kër ga te ne ko na nga toppatoo nit kooku bés moo fi jaaraatee dinaa la fay lépp loo ci dolli ci xaalis kan ci ñoom ñooñu mooy niroog moroomu ka sàccee dogale woon ki baaxoon ci moom <laughs> demal te def ni moom <clears throat> bàyyi leen xale yi ñu ñëw ci man bu leen leen tere ndaxte ñi mel ni ñoom ñii ñoo yeyoo nguurug yàlla gi ci dëgg maa ngi leen koy wax ku nanguwul nguurug yàlla ni ab xale du ci dugg mukk ku nangu xale bii ci sama tur man mii nga nangu te képp ku ma nangu nangu nga ki ma yónni ndaxte ki gën a woyof ci yéen ñépp moo gën a màgg lan moo fi xew. gi yeesum nasaret moo fiy jaar. yeesi yërëmal yeesi yërëm ma setub Daawda dimbali ma yërëm loo bëgg ci man dama bëgg gisaat bu leer kon nag xoolal sa ngëm faj na la gis naa waaw maa ngi gis gisaat naa su di dem Yerusalem muy daje ak ay mbooloo fu nekk ñu di ko laaj yoonu mucc te mu gën leen a leeral nguur yàlla te bi kilifa gi musalma borom bi musal ñu may ma benn juutikat bu tudd saase te dëkk Yeriko bëggoon naa gis yéesu lool ba mu yéeg ci genn garab ngir tiim mbooloo ma. xool leen xool leen mu nga jëm ca kër juutikat ba. saase wàccal te gaaw ndaxte tey jii sa kër laa war a dal. sama kër. ah ana ku dal ak nit ku mel noonu. nan la saase xamee yeesu. oh, leen ma dogu naa may sama genn wàllu alal miskin yi te lu ma mës a nit jël alalam dinaa ko fay ñeenti yoon lu ni toll <laughs>

doomi nit ki ñëw na àddina ngir seet musal ñi réer déglu leen dinañu dem Yerusalem te fale li yonent bi lépp ci mbirum doomu nit ki di mate dees na ko jébbal ñi dul yawut ñu ñaawal ko saaga ko tifli ci kawam dóor ko ay yar itam ba noppi ñu rey ko waaye ca ñetteelu fan ba dina dekki li yéesu xam lépp na dinañu ko rey ndax bàkkaari nit ñi teewul mu dem yerusalem mbooloo mu bare ñëw di ko gatandu te fal ko bóor ma ne yeddal say taalibe yem maa ngi lay wax ne bu ñu noppee ñoom doj yi dinañu xàccu ca kaw ndax mbég su jegee Yerusalem ba seen ko mu jooy ko ci yow itam boo xamoon ne bésub tey ji laa mën a indil jàmm waaye fii mu nekk mënuloo ko gis bés dina yu seen noonu yow Yerusalem di jël wërale la dinañu la tëj ci biir tànc la dinañu la yàqaate yow ak sa waa dëkk dinañu rey sa waa dëkk te doj dootul des ci kaw doj ci yow ndaxte ràññewuloo jamono ji yàlla ñëwee ngir wàllu si la kër yàlla ga ci Yerusalem fa ñu waroon di ñaane dafa mujj nekk taaxum jaay ak jënd fanweer ak benn ak ñaar ak ñett ak ñeent ak juróom ak juróom ñaar ak juróom ñett juróom ñeent ñeent fukk ñeent fukk ñaar ak ñett ak ñeent ak juróom ca sëriñ sa ak xutbakat ya di gën a metti ndaxte ñépp ñoo ko doon tegandoo wóor nee nañu ma ñu bari jàpp nañu ko xaat ñu seen buur seen buur buur bi yalwaankat yi sàcc si ak caga am nañ ci ba doyal dañuy ñëw di wanewu di jógloo mbooloo mi ba noppi dem bu leen ci kenn nax si wam day yokk nit ñi bëgg ko di ko topp te it mbooloo mi di ko yéem loolu la buur la bàyyi leen leen bu sama dëkk bi yëngootee benn yoon rekk dina dellusi ci seen kaw xëy na wax na dëgg jëflanteek waaye Galile jot na ak li kuréelug sëriñ su naafeq sa ak mag ña di def lépp yéesu dal ci seen kaw siiwug waayu Galile ja di gën a yokku te aytalu ña ko doon jéem a daan gën a métti. tuuti na rax ca dolli ci ay poseti xànjar. ma ne jigéen ju ñàkk jee moo ëpp ñeneen ñi lu mu joxe ndaxte ñoom ñëpp dañoo sàkku ci seen barile waaye moom dafa sàkku ci néewleem ba joxe xaalis ba mu waroon a dunde wax ñu yow ci ban sañ-sañ ngay def yëf yii kan moo la may boobu sañ-sañ. man itam dinaa leen laaj leen la yax ya daan def di sóob nit ñi ci ndox fu mu ko jële ci yàlla wala ci nit ñi. lu ñuy tontu. bu nu nee ci yàlla dina nu laaj ko nag lu tax mu leen yax waaye bu nu ne ci nit ñi mbooloom yëpp leen sànni nee xeer ndaxte gëm nañu ne yax ya la woon. xamuñu fu mu jëlee boobu sañ kon man itam duma leen wax ci ban sañ-sañ laay defee yëf yii. dafa amoon nit ku jëmbat toolu reseñ batale ko ay beykat mu dem tukki tukki bu yàgg bi ñu àggee nag ci waxtu ngóob mu yónni surga ci ñoom ngir ñu jox ko wàllam ci meññeef mi waaye baykat yi dóor ko ay yar mu delloo loxoy neen mu yónniwaat beneen surga waaye baykat yi dóor ko moom itam toroxal ko dàq ko mu delloo loxoy neen sunu waa waajooju yónneeti ñetteelu surga waaye baykat yi gaañ ko dàq ko boroom tool bi daldi ne nan lay def nag dinaa yónni sama doom sama reeni xol xanaa nag dinañu ko weg moom waaye bi béykat yi gisee doom ji ñu ne ci seen biir kii moo war a donn tool bi nañu ko rey moom ndono li bul ko tool ba nag rey ko kon naka la borom tool boobu di war a def nag ak béykat yooyu xanaa ñëw rey béykat yooyu dénk tool ba yeneen béykat kon nag wax leen ma lu baat yi ci mbind mi di tekki doj wa tabaxkat yi sànni ne amul njariñ mujj na nekk doju koñ wi képp ku dal ci doj woowu dinga damatoo te itam képp ku mu dal ci sa kaw dina la rajaxe ba nga mokk kilifa gi xam nañu ne li ngay wax te di ko jàngale lu jub la xam nañu ne li ngay gis ci nit du maanaa waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax ñu nag ndax jaadu na ñuy fay buur bu Rom ay lempo waaw wala déet moytul borom bi fiir la wan ma pasetu xaalis nataalu kan ak turu kan lañu ci def César kon nag jox leen César li César moom te jox yàlla lii yàlla moom lan ngeen di tontu ci loolu léegi nag bésu màggaluk Pâques mu ngi doon jege si mu doon màggaluk mburu yi amul lëwéer yeesu yebal piyeer ak yowaana ngir ñu waajal reeru pak lool lekk ak yéen reeru Pâques bi balaa ñu may sonal ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma ko lekk mukk lu dul ba kera muy mat ci nguurug yàlla cant ñeel yàlla sunu boroom moom mi àddina tey génne biiñ ci tollu reseñ gi jël leen kaas bi seddoo ko ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma naan ndoxum reseñ mii ba kër yàlla di tëral nguuram cant ñel na yàlla borom bi moom mi yilif àddina tey génn mburu ci suuf si lii sama yaram la wi may joxe ngir yéen seddoo leen ko ngir fàttaliku ma kaas bii mooy misaal kóllëre gu bees gi yàlla fas jaarale ko ci sama deret ji tuuru ngir yéen waaye nag gis ngeen loxob ki may war a ngi nii nekk ak man ci ndab li doomu nit ki dina dem ni ko yàlla dogale waaye ki koy war dina torox loolu mun na la nekk loolu mënu la nekk loolu du am wax ñu turam borom bi ki gën a màgg ci yéen na nekk ni ki gën a ndaw te njiit mel ni surga kan moo gën a màgg nag ki toog ci lekkukaay bi walla surga bi xanaa kay ki toog ci lekkukaay bi waaye man maa ngi nekk ci seen biir ni surga yéen nag yéene ñi ànd ak man ci samay coono loolu moo tax jox naa leen nguur gi ni ma ko sama baay joxe noonu dingeen lekkandoo naanandoo ak man ci sama nguur dingeen toog ci jal yi di àtte fukki giir ak ñaaru bànni la kon warkat amul xanaa Simon Simon déglul seytaane ñaan nañu jébal leen ko yéen ñépp ngir mu tàggale leen ni ñu tàggalee dugub ak xatax waaye man ñaanal naa la Simon ngir sa ngëm dëgër te yow boo dellusee ngay dëgëral sa mbokki taalibe yi borom bi attan naa ànd ak yow ca kaso ba ci dee sax ak yow maa ngi la koy wax Pierre balaa ginaar di sab tey jii dinga nga ñetti yoon ni xam nga ma ba ma leen yebalee yóbbaalewu leen kalpe mbuus wala dàll ñàkkul ngeen dara. dara. léegi nag képp ku am kalpe na ko jël te ko am mbuus na ko jël ku amul jaasi ne jaay mbubam jënde ko jaasi ndaxte maa ngi leen koy wax li mbind mi wax faw mu am bi mu naan boole nañu ko ak ñu bon ña. borom bi ñaari jaase ngi. doy na matu te noonu kuréelu mag ña daje ngir wut pexe mu ñu reyloo yeesu booba nag la seytaane dugg yuda mi ñuy wooye iskariyo te mu bokkoon ca fukki taalibe ya ak ñaari yéesu mu dem waxtaane ak mag ña ngir jëbal leen yéesu yéesu jóge yerusalem dem ca tundu oliw ya ngir ñaan ñaan leen ngir bañ a daanu ci ak fiir yuuta iskariyo daldi wor yeesu ndax fanweeri poseti xaalis yéesu xamoon na ne waxtu wi mu war a dee ngir bàkkaari nit ñi jege si na muy ñaan baay soo ko bëggee teggil ma kaasu naqar bii moo ne bu muy ci sama coobare waaye na sa coobare am noonu malaakam yàlla daldi koy feeñu may ko doole ñaqam mel ni lumbi deret di dal ci suuf lu tax ngeen di nelaw jóg leen te ñaan ngir bañ a daanu ci ak fiir jébbale doomu nit ki ay noonam borom bi ndax du dóor ak suñuy jaas yi léegi nag nañ ko jàpp bàyyi leen ko doy na leen a ak jaasi ak yet ni topp sàcc daan naa nekk ci kër ga bés bu nekk ak yéen te jàpp leen ma waaye léegi seen waxtu la ak jamonoy dooley lëndëm yi watukat jàpp ko te watu ko saa nga doon yóbbu yeesu ca géew ba te di ko ñaawal naan du yaay buuru yawut yi wax ñu li nar a xew ba tey yow yaa ngi bëgg musal ku tedd kii gis naa nit ki itam ak nit yi yeesu soxna si xaw ma kooku gis naa leen ñoom ñaar ñëpp wóor nit àndoon na ak moom waaw ak yeesu ndax Galile la jóge ma ni damal ñu jàmm ah, man mii xaw gestu xool Pierre Pierre fàttaliku la ko borom bi waxoon balaa ganaar sab tey jii dinga ma weddi ñetti yoon <laughs> borom bi te defal li la war jaarale ko ci sa mbaax gu màgg gi yow mi baal suñuy maam yow mi leen baaloon ba ñuy jógee di jéem a daaneel kàddu yow mi leen mere woon waaye ndax sa mbëggeel ak sa kóllëre ci ñoom muñal nga leen ba sax ci sa ndig borom defal li nga war def jaarale ko ci sa ku la dóor waxal soo dee yone wax ñu ki lay ba taxaw du ngeen dégg bàyyi leen ko te yóbbu ko kuréelu mag ña jógal njiitu xeet wa maanaam sëriñ su mag sa ak xutbakat ya indi yeesus ci seen kanam wax ñu ndax yaay almasi bi su ma leen ko waxee du ngeen ma gëm te su ma leen laajee it du ngeen ma tontu waaye gannaaw si tey doomu nit ki dina toog ci ndeyjooru yàlla aji kàttan ji kon nag yaa doomu yàlla ji waaw moom la ku san ñun ñépp ñoo déggandoo wax ji ci gémmiñam dañ ko yóbbu ci kanamu Pilate waaw waaw yóbbu leen gëstu ca kanam pilaat mi gën a nekk ci kilifay rom yi moom mi daajoon ci bant ay junni junni nit waaw yéen ak lu ngeen di wut ci fii ci fajar ji fekk nañu nit kii muy jaxase suñu réew jaxase na lépp ca marché kër yàlla ga lu ko yoon teg war nañ koo yar man gisuma ci nit ki genn tooñ gu jar nu daan ko yoon dab na ko bu wóor mu ngi tere ñu fay lempo boroom réew mi te mi ngi teg boppam almasi bi maanaam buur buur ndax yaa di buur yu yowti yi yépp wax nga ko yow ca Galile la tàmbalee léegi nag egsi na fii ci Galile ndax nit kii Galile la dëkk bu fekkee ne loolu la faw Hérode toppatoo mbiram ah du mu nga Yerusalem ba tey yóbbu leen ko ca Hérode kan nag ngay teg sa bopp ana ngay tudde say taalibe ñu bari wax nañu ni dangay def ay kéemaan defal ma kéemaan ku dañu ko jiñ ni mu ngi réeral waa réew mi te mu ngi teg boppam ab buur nit kii buur <laughs> yow mi tedd mi dóor leen ko bu baax delloo leen ko piraat mbir mi moo ko war a àttee gën a tooñ gu jar ñu kon nag su ko defee dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko màggal gu nekk daan nga ñu may bàyyil ñu kenn ci ni ñu tëj dañoo bëgg nga bàyyi barabas te te nga rey nit kii

ñu sax ci di yuuxu naan nañu ko daaj ci bant. acca yëkkati leen ko. Pilaat dogal ñu defal leen li ñu bëgg mu bàyyi leen Barabaas ki ñu tëjoon kaso ndax tas réew ma ak rey nit te ñu ñaanoon ko ko ba noppi ñu jëbal leen Yeesu ngir ñu daaj ko ci bant. jooy leen seen bopp ak seeni doom ndaxte sunu defee nii garab gu tooy gi lu nuy def su garab gi woowee dinañu la ñaanal na la yàlla wolu si ayca jógal dox leen topp leen fal na ñeneen na musal boppam su mooy ki yàlla fal su fekkee ne yaay almasi bi musalal sa te nga wàcc ci sa bi won ay keemaan noonu ñu daaj yeesu ci bant ci diggante ñaari sàcc di matal li yonent yàlla waxoon lu jiitu ay téeméeri téeméeri at bu boom xamkat lu doy waare ngi <laughs> déedéet bu ko xotti nagal ñu tegoo ko ay bant waaw nangu naa loolu jël naa ko déedéet yow soldaat sa tegoo ay bant yéreem yi ah ku jël na ko. loo koy def nag léegi. xamaguma ci dara. <laughs> di nga ko naan kii mooy buuru yawut yi sa bopp soo dee buuru yawut yi almasi bi musala sabab musala sabab te musal ñu xanaa ragaluloo yàlla ñu ngi koy mugal ni ñun waaye moom deful dara lu bon su fàttaliku ma boo dellu see ci sa nguur ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii di nga texe ak man noonu ba bëccëg daldi jot jant ba nëbbu réew mépp daldi lëndëm këruus lu mot ñetti waxtu sell ba ca kër ga daal di xar ñaar jàngalekat ya gisee mu màggal yàlla te naan cant ñeel na ndax dëgg-dëgg nit ku ñuy wax yusufa dëkk arimate te bokk ca kuréelu àttekat yi di nit ku baax te jub te àndul woon ci li ñu dogaloon ba jëf ko dem ca pilaat laaj ko néewu yéesu ngir dugal ko ci bàmmeel bu jant bi so laata bésub noflaay bi di tàmbale baal ñu waaye dañuy agsi leen Mariama waaye gaawantu leen bésu noflaay baa ngi tàmbale bés bu njëkk ca ayu bés ba jigéen ñi jóg ca njël dem ca bàmmeel ba yóbbaale cuuraay lañu defaroon ñu fekk ñu bërëng doj wa ubboon bàmmeel ba waaye ba ñu duggee ca bammeel ba fekk ñu fa néewu borom ngeen di seet koy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen la mu leen waxoon ba mu nekkee Galilée faw ñu jebal doomu nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ci ñetteelu fan ba mën te ñaari jëmm feeñu fa di ay malaaka yuy melax nib jant ñu neenu lu tax ngeen di seet kuy dund ci biir néew yi dëgg la gis nañu leen dem leen seet yéen ci seen bopp dara nekkul ca bàmmeel ba suñu borom dem na Simon Pierre gëm ñu dëgg la borom bi dekki na feeñu na Simon. xàmmee wuñu ko ca kaw yoon. waaye bi ñu damee mburu ma nañ ko xamee. doy na waar ci li mu dem dëkku Emmaüs. na wàcc ci yéen. ngeen jaaxle te lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk ndaxte man la ci sama bopp laal leen ma te kon ngeen xam ko ndaxte njuuma amul yaram walla yax ni ngeen gisee ma am ko yëf yi laa leen waxoon bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen ni li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu Musaa ak ci téere yonent yi ak ci sàbbur dafa war a am loolu lañu bind ne almasi bi dina sonn te dekki ca ñetteelu fan ba te ci turam lañuy yëgle ne xeet yépp war nañoo tuub seeni bàkkaar ba yàlla baal leen te ci Yerusalem lay tàmbale yéen a seede yëf yii te man dinaa leen yónnee li sama baay dige waaye war ngeen toog fii ba ñu sol leen doole di jóge ci kaw na leen yàlla barkeel te sàmm leen sañ-sañ bépp jox nañ ma ko ci kaw ak ci suuf dem leen nag sàkku ji ay taalibe ci xeet yépp soob leen cim ndox ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi te ngeen jàngal leen ñuy sàmm lépp li ma leen sant man nag maa ngi ànd ak yéen bés bu nekk ba kër àddina di tukki Amén. bàmmeel ba ñu dugaloon néewu borom bi dara nekkatu ca ñetti fan gannaaw ba ñu ko daajee ci bant yeesu tekki na mu ngi dund dafa bëgg wàll ci sa dund yeesu nee na man may dekkite li te may dund gi ku ma gëm boo dee sax dinga dund di almasi bi yeesu dekkee ak léegi daanaka ëpp na ñaari junni at mu ngi dund ba tey di gën a am doole te gën a màgg lépp luy ñëw ci àddina ca jamono yu yàgg ya nit ñu mag ña feeñ nañu ba noppi réer maanaam buur yi boroom xam-xam yi xamkat yi ak ñiy gëstu ci mbir yàlla waaye yéesu mi dund ba tey kenn rekk la ci nettali lépp li xew ci àddina kenn rekk la ci ni mu juddoo bind nañu ci téere bu sell bi ne janq bu tudd maryaama ko jur moom kenn rekk la ci ni mu dunde dundam gépp dafa ëpp xel dund na dundin wu sell te rafet def na ay kéemaan ak ay jaloor yu keneen mënul kenn rekk la ci xebaar bi mu indil nit ñi yeesu de joxe mbëggeel ak njégal ak dund gu bees ñépp ñi ko nangu nib musalkat ak ni seen boroom fépp fu ñuy dégloo xibaaram mu indi fa naataange ak yaakaar ju bees ak xel mu bees ci dunduk doom aadama kenn rekk la ci ni mu dee gannaaw ñaari junni at yàlla joxe jenn doomam ji mu am kepp yéesu ñu tudde ko kirist muy tekki kii yàlla tànn ngir mu nekk sarax suy dindi bàkkaari nit ñépp kon dee na ngir yow kenn rekk la ci ni mu dekkee xew-xew bi gën a doy waar ci nettali bi am gannaaw ba mu dee ba am ñetti fan yeesu noot na dee ba dekki juddoom dundam deem ak ndekkiteel yéesu ay firnde lañu yuy wone ne yéesu mooy ki mu doon jiiñ boppam maanaam doomu yàlla ak musalkatu nit ñépp dafa bëgg wàll si ci sag dund baal la say jox la kàttan juy jëme ci dund gu naat yeesu nee na ñëw leen ci man yéen ñépp ñi sonn te diis te dinaa leen may noflaay man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn mënula ñëw ci baay bi te jaarul ci man bind nañu ci téere bu sell bi ne ñépp a def bàkkaar ba bokkatuñu ci ndamul yàlla waaye mayug yàlla mooy dund gu jeex ci Yeesu Kirist sunu boroom yéesu dee na ngir yow gàddul la say bàkkaar ci waxtu wii sax fekk na mu jekk ngir wàll si ci sag dund maa ngi ci sa bunt di fëgg bu kenn déggee sama baat te ubbi dinaa dugg ci këram ngir firndeen mbëggeelam akuk njëgalam te jot dund gu dul jeex war nga nangu yéesu ni sarax bi yàlla nangu ngir say bàkkaar te ci sa kaw ngëm nga ñaan ko mu wallisi ci sa tund su fekkee ne mooy li nga namm ci sa xol mën nga ñaan yàlla ci kaw ngëm te yàlla miy musalkat dina walla si ci sa dund ñaan a ngi gu ma lay tegtal njëkk ko déglu borom bi yéesu soxla naa la jërëjëf ci li nga dee ca bant ba ngir samay bàkkaar ubbil naa la lépp lu jëm ci sama dund te nangu naa la ni sama musalkat ak sama boroom dangay kilifa gi mat sama dund defal ba ma nekk nit ki la soob aamin su ñaan gii dee li nga namm ci sa xol mën nga koo def léegi fi kanam yàlla fi nga nekk ndaxte bëgg nga koo waxaat ci sa xel bu ma la ko sawee boroom bi yéesu soxla naa la jëf ci li nga dee ca bant ba ngir samay bàkkaar ubbil naa la lépp lu jëm ci sama dund te nangu naa la ni sama musalkat ak sama boroom ngay kilifa gi mat sama dund defal ba ma nekk nit ki la soob amiin léegi nag bi nga wooyee borom bi yeesu mu wàll si ci sag dund na la wóor ne dina ci dugg ni mu ko diggee def na la wóor nit baal nañu la say bàkkaar te nekk nga doomu yàlla te itam am nga dund jeex su la sa coobare xiiree ci dund gu yaatu te naat gi yeesu dige nag mën nga cee bokk soo dee wéet ak moom bés bu nekk ci ay ñaan di gis sa mujj gu rafet ni ko téere bu sell bi tërale te it nga boole ci di waxtaan ak ñenn ñi nga bokkal benn boroom bi gën sopp te di ko topp kon nag fàttalikul ndigam yiy feddali Pastef duma la bàyyi mukk duma tàggoo ak yow mukk xam leen ni yéen samay taalibe maa ngi ànd ak yéen bés bu nekk ba kere àddina di tukki